Patte d'Oie du projet boobu kese moo fi am am na projet euh, bu jógee Thierno Ndiaye jëm benn phase am nañ projet assainissement tey gis ministre Omar Gueye ñëw na fi tey di di di projet boobu mooy bu ñu def Kër Massar bi pour assainissement dañ koy koy boole ak Yeumbeul Sud pour ndox bi mën a verser en même temps pour ndox bi bañ a tawaat am na projet Lampadaire am na fi donc projet yooyu yëpp lu tax mu bloqué parce que ñun politique yi dañuy jël dañuy jël projet président a nekk. xam la. ñun politique bu ñu jëlee jiital ko parce que souvent lu ñu war a fàtte dañoo war a bàyyi projet état doxal état ñun politique yi doxal suñu suñu bopp donc souvent tamit yëmbal dafa ay réalité mooy yëmbal c'est un village malgré am na ay sàncaan yëpp ñi xam ne am na chef de village ñi xam ne tamit am na xalif général euh, tey am na waa Kër Laayeen ñi ngi fi donc ci yooyu yëpp ci ay na ko comme ni ñu defee prolongement VDN yooyu yëpp ci ay waxtaan la mais je pense que financement yi c'est déjà bouclé yëpp am na tey pour yëmbal mën a mën wax nga ni wax nga ni wax nga ni blocage bi ci yéen. non jógewul ci jógewul ci ci état je que ay discussions yu ndaw moo am comme ni ma ko waxee souvent projet yi def au niveau de Yëmbal bu ñu bëggee population bi approprié ko dañ koy bañ a politiser ñun suñu comme ñun ñi bañ ko porté ñu bàyyi état état moo xam parce que état dafa état yoonam la nekk ñun ci état lañ bokk. on est des auxiliaires de état lañ bokk mais dafa am beneen liggéey bu ñu yoon muy wàllu politique bu ñuy politique dañuy politique donc bu defee bu amee yenn projet yi état indi ko ko ñun politique yi ñu bëgg ko jël politique ko ci population indi problème entre nous et les collectivités euh, bu fi nekk nga xam la bokk wala yenn population yoo xam ne ànduñu donc